Toulaye na nga def yaa ngi ci jàmm bien merci ah merci da ngay da ngay dépasser lu sayoon ci ko sinam bu rafet ak bu ñaaw non loolu dara nekku ci non kon kii mu ngi lay xool Toulaye a de eh mi yow ëppalul yow ñu may la mettre nga xotti bi dafa warul apprécier ana jànk ak apprécier jëkkër ju am lii du dara non trop c'est trop nag lan la xanaa gisoo samay appel moo xam nga dama am rencontre dama am rendez-vous tey. ba doo jël samay acte wala sa buy xëy nga jaar fi nuyu ma da ngay ñëw rek fi mu ne nii sax maa ngi tardé. baax na li ma lay wax daal mooy sa kii sa kii ci jël décision ferme. kan Miss Thiam. neex a dëkkal mi naqaree dëkkal sax laay wax. à part deux heures yi dootu fi toggati lu weex ak lu xattaaral nangu naa ay bi ci moom weeru lu mu nag koor yëpp may togg on pense tout. wuyu ku jekk ko da ngay baal ku jekk xam nga nag rafetul. muy jeeg ne yow di sëy ci kër jeget la du jeeg. weer bi yëpp yow nga nar a jël togg bi di togg moom mu toog croiser les bras loolu tamit rafetul yaa ngi dégg man xam naa lii nga bëgg a def nii li ci jublu mooy. ma lekk lekk bu baax rek. jeex na mënuñu sëy ay at ma lay toggal lu neex. waaw jeeg ñëw di wexal ay xorom lu xewi. pour la may ko deuxième chance. loolu nga gis may ko beneen chance. baax na amul problème waaw waaw may ko beneen chance. ne bu ratewaatee. waaw. après ñu xool ñu nag ñu doog a jël solution. jeex na waaw du ma na baat def jeex na ay ca bonne journée kontaan naa jërëjëf jërëjëf yow gis nga Tula. yow dafa mel ni ñun koor koor gi weeru koor gi ñun dinañ la jox suñu waañ wi nga séeréel ñu ko weeru koor gi kii mi ngi soog a raté yow ñaata penalty nga fi raté yow championnat bi yaa ko xañ kaan bi yaa ñu ko xañ te leer na ma ne xoromu démb bi génnewu de xorom bi bu ma koy topp ba topp sa loxo xorom waaye du loxo Miss Thiam. chéri. ki yor dossier junior yi am naa ci solution ñu yëkkati benn somme teg ko ci loxoom ndax affaire yi gaaw bu dee yoroo xaalis natt bi ma bokk ma ko teggi jox la ko. yow li may sant nii xam nga loolu nu mu tudd corruption yow loolu nga may digal maanaam ma ger avocat bi est-ce que xam nga li may sant déli la sama kasu xañ na ci. kaso. gis nga ger ñun ñu dëkk àdduna ñu ñoo war a xeex pour mu jóge ci kaw suuf kenn ku ci nekk nañ la bàyyi nga def sa liggéey ni nga ko war a defe jàmm ni ñooy. mais quant joxe xaalis nag ah non gis nga problème bi yi problème bi dinaa ko régler yow yaa ma ci mën dimbali du keneen mais ci dal rek. Fall yaa ngi noppalu ko ah c'est bien dama bëggoon dem kër bi dama ma ne xaaral ma ñëw tàggu la. Ah, mbaa jàmm la. waa jàmm la du ma yàgg dafa am lu may récupérer su ma fa jógee après ma enchaîner dem marché. Ah, la nga bëgg reeree tey. yow loo def baax na. loo def baax na. ah kon baax na kon di nga kontaan tey. ah jërëjëfati yàgg nga maa bégal. allez Nay Faw. donc ça li ñu togg tey. tey bàyyi lépp dégg nga nga noppalu ko xam naa ne danga sonn après dinaa ko gérer dégg nga. tout à fait la tamoon di jàppale. waa dëgg la mais xam naa ne danga sonn xam nga liggéey bi dafa bari. bàyyil man te dinaa togg togg bi nettoyer bi sax après bàyyi ko man dinaa ko àggali dégg ok bàyyi la jàpp ci kan nag ma chérie ça fait longtemps. yaa ngi ci jàmm. yaa ngi yi. sañ gis naa la yow tamit maa ngi sa ginnaaw. sinon. ça va ça va sant. ana sëñ bi dafa génn. waaw liggéey na de. ah. xam mhm. nga moo tax ma ñëw fii. Mhm. nga jox ma recette. recette rek a tax nga ñëw fii. te nga mënoon ma woo téléphone. kaay yow doo dem la moo ma tax a dama xaw a jaaxle nag. xam nga yow yaa ma gën a miin kër gi man daal démb. yaay. toogal yaay. danga ñangal de. ma ne nga dëkklu ba maa la woo jox ma nopp bu baax maa yow wax. démb. Hmm. waaye ñu démb. Hmm. gis naa la nga fiy jaabante man génnuma sama nekk mais lu ne ci waañ bi rek mën naa kaa xam te duma laajte ndax damay taal caméra bi dama bëgg xam nag lan nga fa def kii li mu togg dafa wex xatta mm-hmm. dama bëggoon xam nag cinam li ndax danga ko laal walla laaloo ko siinoo kër gi am na caméra mm. buñ ko taalee ñépp toog bu dee am na lu ñu def ci cinam li te nit a ko ci def mu ngi ci kër gi muy man di faama di keneen day génn kër gi bu dee yow nag fi ngay doxee ñibbi sa ñaari weer yi ma yore doo ko yóbbaale. Eh, yaa yëgal na déedéet loolu moom maa ngi lay yëgul bëgguma dem labe ngir yàlla ñaan naa la nag bu dugg si yooyu nag. léegi xaaral rek ma expliqué ku nga comprendre. waxal ma dégg. xam nga waañ bi. Mm. son patron Mada. Mm. kan koy mat akare laa um la dégguma li ngay wax wax ma olof bi ñu doore waaw waaw maa ngi moom moo wax ma def xorom si cin bi. moo la xorom cinu jàmbur li nga xorom ko. waaw bu la ne woon defal sa loxo ci taal bi di nga ko def. du loolu sax sama deuxième patron madame mu ñëw fii di jaagal jaagal jaay loolu la moo tax. yow loolu sa baax na na yem ci ñun ñaar. xam nga lu ne buur ay baa buuray fóot weer ba mu wow yaay yàlla. taw ca kawam mu tooyal yàllaa ko won ni pomme du pasta yow mën naa jiitu ci kër gii bay fi dugub bay fi gerte bay fi mboq xale bi ñëw rek bu ko ruural yépp ruural ko daanu na nag démb daanu na. yaa ko daaneel. kër dañ daa énervé ko naan ma ne yaa ko daaneel. yaa yónni tulaay xolom ci nu jàmbur. te dafa feeñ ci sa yaram. waxal naa kan kan moo la wax loolu. lu waay def sa tulaay tulaay kan moo waxal la. tulaay waxal ko an xaalkam dundoo wala ko min xaaltam dundoo. sama gàcce boobu démb biddéew. Hmm, loolu nu mën a nekkee. man moo ma jaaxal moo tax ma ne xaaral ma ñëw laaj la xam nga yow yaa ma jiitu ci kër gi. Hmm. te yow sama sœur nga yow miin nga famille bi mais sama xel daal ma ni awa yaay faama ba nekkul genre jekk yi nga xamante ni dañuy màtt di ëf di def ci hmm. suuf. di yàqal seen wujj bi. ma chérie yow tam sàggan nga de kuy togg da ciy togg. ah. Hmm? léegi lan lay def. instant yi moom benn conseil dong laa la mën a jox. Hmm. toppatoo sa jëkkër. Hmm. nga def li la war ci moom. leneen li yëpp ay détail la te femme moom jéemal naxanteeg moom metti na mais jéemal naxante. baax na dinaa appliquer say conseils femme moom maa ngi gérer ak moom xam nga man sama ay mbir man méttiwu ma. gérer ak moom rek man ma moom mais li nga wax dinaa ko def recette bi dama andil ma ko. waaw <laughs> dama yaatal. nga de. dama andi recette bi. xam naa ne ma la wax xam nga da ngaa mën. tey moom recette à la tubaab laa lay andil. jeex na maa lay yow. <laughs> dafa dem kër bi déew bu fa jógee dem marché. kër bi lu muy def kër bi déew. soxlaan waru fa dem. lu mu la wax ne moom la fay def. danga ma bëgg a naax la. yaay lu mu sol daa sañ sa dafa. yoo xooluma ko nag lu mu sol ndax loolu intéressé wu ma. bëgg wàññi. waaw dama bëgg wàññi. ah super. Mm-hmm. Hmm, aji. xaaral <laughs> am gan. waaw. waaw. kan la. loolu c'est pas important. damay am gan. damay am gan. ok. bu ma fàtte woowaaleel si ñoom. waaw dama nekk ci waañ bi dama xaw yàkkam ci. junior mu ngi ci suuf di football jarul dérange. bàyyi ma ñëw daw xam naa ne tey moom la nga la nga jàpp. moo gën de parce que man aw te junior mu ngi ci suuf di football dama ba beneen. ak magie arôme sa wàññi ngi gën a melax ak yow tamit magie arôme am na ingrédients yi nga sopp yépp cafka gi xeet gu neex gi ak couleur dorée bii ci arôme magie ak soble piment vert ak laaj seeni togg gën tina saf ak bii xeetu arôme bu riche magie arôme mooy seen àndandoo bu gën a wóor ci safal seeni ceeb ak soos magie arôme roy du nur ak piir ak magie arôme toggal soppi sa dundu sa kër gii. Hmm. Ah, allah dafa sax tubaab. jekk kër dan laa koy tudde waxuma dara mais présentation bi mu teg nii. yaay rataat la doom ki nga juróom gi nii toog. sa biir rek sa biir rek muy nii. kii yaa boole kulo bi. gis nga mère kii toggagul man maa la wax ne la toggagul kii bi ma koy doxal. moom bi ñuy xamante. waaw ba daan dem seen kër ci jamono yooyu. diggante bu gàtt boobu chaque guddi ak plat bi may fekk ñoom ñu bokk daan naa reer fii sax ci kër gi ba pare mais ñoom ni may séenee seen reer boobu oh, chaque jour ak plat bi ñuy tuur. waaw boo xoolee ma ko laajee sax daf na ma yaayam dafa def restauration. plat bi bi deewa ko ko dox bii nii gratin de poulet bi. Hmm. waaw waaw bi ko te moom am na yeneen plat yu xam yoo xam ne moom mën na koo def te defagu dolli na ci maninam de. faama boo bëggee sax moom mën na la jox ay plat. Ah. Hmm? waaw boo bëggee mën na la jox ay palaa de. du yaayam dafa def restauration. waaw ko jox yaayam. déedéet daan naan na ko ko yaayam jox. moom moo ko jox yaayam. waaw yow sa yaay deful restauration. bi hmm? yow it. kaa toog fii. sama maam toog. Allez, bon appétit. Merci. non mixeur bi baax na mixeur bi baax na de wala jus bee neex teel bu ma sukkal di ma tojal laa la wax. wajjo pour lan sukk kii li ma ko may dafa commencé ëpp nag munu ma nangu lépp lu tax mu may tojal. mais sukk. lii du jonge def la du ma sukkal di ma tojal. faama li teraanga rek de. faama. gis nga sukk. signe de respect la. teraanga loolu mooy man maa ngi lay jox ñam. mais yii ne yaa ko solal timb bu avocat te yaa koy waxal amul gémmiñ moom du wax man nii laa mel sama vraie nature laa la woon su ma kontaanee je kontaan su ma meree je mer quand tu parles tu de man cosaani Sénégal laa lii la lii la nu mag ñi yaree cosaan kii dañ koo yaree rek faruma yow gis nga yaay ñan yaay ñoon di dekk yomal da ngay jéng yor bant yow a sa bopp yow waa waa jéng jaw laa dëkk waa jéng jaw jéng jaw laa dëkk garaawul aawa yaay baal a ak man maa la tooñ dootul amati dégg te yaram war naa daw béykat wuyul wuyul yow baal nga ko wuyul yow yaa ko baal. kii baal na